بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي أكفنين من النك كوصوف نجلين دواخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di dellusiwaat ak yéen ci àjjuma ju tëdd ji nga xam ne mooy dëppook le 3 mars le 3 avril ci la nga xam ne nii mooy atum 2020 adduna bi du dund loo xam ne nii amul kenn koo xam ne umpale na ko ca mooy li ñu yàlla nattoo muy virus corona korona boobu nga xam ni suñu boroom yàlla moo ko yónni ci ñun suñu boroom ni muy yónni ay yonent noonu lay yónni ay kawtéef looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ñu wax ni kenn ci yéen bu gisee ngelaw lu tar luy upp ngelawaay bu mu ko rëbb waaye na wax yàlla maa ngi lay ñaan yiwam ak yiw yi nga ko yónni di la ñaan nga musal ma ci ayam ak ay wiñ ko yónni loolu it moo tax ba jullit bul rëbb korona korona jaamu bi yàlla la boo xam ne médecin yi wax nañ ci loo xam ne jommal na doomu aadama bu dee ak kawtiif mi ngi ci xolam ndax loo xam ne dañ naan bu ca benn laalee doomu aadama balaa am vingt-quatre heures dana multiplier ba mat dix milliards ci ay corona yu nekk ci moom mbokk loolu romb na xelu doomu aadama kon kawtéef la ci kawtéefi borom bi subhanahu wa taala yàlla yónni ko mu ñëw nekk nattu musiba bu rëy ca yéeféer ya kum ca dal dana nekk mbugalu àdduna kum ca rey dana la tabbal sawara gannaaw ba it nekk loo xam ne dana fóot ay bakkaar ñiil jullit ya nga xam ne ñooy muñ nattu ya korona teg ci ñoom na doon daf leen a dal ñu am ca coono wala daf leen a yàqal lu aju ci seen mbiri àdduna ñoo ñit dana yëkkati seeni daraja fóot seeni bakkaar dana ci am ñeneen moos ñoo xam ne corona da leen a yóbbu waaye yóbbu googu it yiw lay doon ci ñoom mbokk doomu aadama foo mën a jaar da nga mës a dee kon nga dee ci dee goo xam ne nii yonent bi alayhi salaam bégal na la nii da ngay bokk min shuhada loolee mbokk dafa war a bégloo ab julit bégloo it bépp julit bu mbokkam dee ca corona googee loolee kon mbokk mooy lu jiitu waaye ñi ngi nii di dund korona xamuñu lan la yàlla dogal ci ñun ci korona boobee lan moo ci suñu war a suñu waru gar mbokk suñu waru gar mooy ñu nangul borom bi jalla wa ala la nga xam ne moo ko sañ ci ay jaamam di def ci ñoom ci la ka neex ngalawaay boo muccee yàlla la musal boo feebaree yàlla moo la feebaral soo faatoo yàlla moo la faat dàqantewul it ak yow mi ñuy topp ci su waxtaan yi paase wala di topp yeneen boroom xam-xam yi wax yépp dàqantewul ci jël say sabab waaye bul gëm mukk na sabab yooyu moo lay musal da ngay gëm na sabab bi sa waru gar la waaye ki lay musal mooy yàlla tey jii dëkk yi gën a avance ci kaw suuf Amérique France Allemagne Chine ila axiri da ngay gis li leen yàlla may ci fagaru teewul fu nekk ay junni ñoo fa dee kon mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñi ngi dunde période corona corona boobu tey danañu fàttali benn jaamu yàlla boo xam ne suñuy waxtaan ci moom la nar a jëm jaam boobu mooy ayyuba alayhi salaam bokkoon ci yonent yu màgg yi yàlla tudd ci ab téeréem ba képp koo xam ne nattu dal na la ci kaw suuf fokk boroom xam-xam ba jàng moom xelam dana na yar ci ayub ayuba boobu nga xam ni suñu boroom tegul woon ci moom benn nattu waaye daa tegele woon ci moom ay nattu comme corona bi ni nga xamee ne am na lenn ci jaami yàlla daa tegele ci ñoom ay nattu nattu yooyee suñu boroom yàlla commencé ne ci li nga xam ne mooy alalam daa di koy teg ay nattu ba alalam yépp jeex ca mbokk julit aka metti ñàkk waaye aka metti ñàkk gannaaw ba nga amee gannaaw loolu suñu borom yàlla dellu ci njabootam di jël njaboot gi ba njaboot gi jeex ba kenn desu ci lu dul benn soxnaam ñàkk njaboot mbokk metti na waaye amoon ko di ko bége ñu xëy ñum ñépp faatu loolu it da ngay gis ne lu tar la lu metti la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defoon na loolu ci njabootam ba kenn ci mujjoon muy Fatima ña ca des ñëpp da leen jiitu kam ca mujj am mooy Ibrahim alayhi salaam ba muy faatu tolloon ci at ak genn wàll bokk na la yonent bi waxoon wa inna min firaaqiqa ya Ibrahima la mahzunuun ay Ibrahim teqilikoo gi ñuy teqilikoo ci yow de tiis nañu lool ba bëtam ya tuur ay rangooñ sallallahu alayhi wa sallam ba kii di Saad ibnu ibnu Ubaada di ko laaj ay yow mi yàlla yónni ndax da ngay jooy ku dee mu ne déedéet Saad lii yërëm naa ne la bu yàlla di dugal ci xol ku ko neex mooy xol bi dana tiisu bët yi dana tuur rangooñ waaye nag suñu làmmiñ duñ ci wax lu dul yàlla gërëm sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon foofu la yàlla jaar ak ayub njabootam gépp faatu mbokk xanaa loolu doy na nattu déedéet suñu boroom nag daa di dem ci jëmmam ja sallallahu alayhi wa sallam teg ko natt boo xam ne dem na ba paralysé ba tëdd benn place mënatul dem fenn mënatul dem ci mbooloo mi loolee mbokk nekk beneen mbir encore mooy ñàkk gu ànd ak feebar suñu borom yàlla gannaaw lii lépp nag yàlla wone aw taggam avant muy wone xettali gam gu xettali suñu borom ne inna wajadnaahu sabira ni'mal abdu innahu awwaab mooy cay sama jaam boobu di ayub man day fekk naa ko muy aji muñ jaam bu baax a ngoog moom ko daan dellu ci yàlla la mbokk kon loolu suñu borom mi ñuy jàngal ci ne jaamam bu baax it du te mu natt ko de ndax nee na jaam bu baax a ngoog waaye it wax na la nga xamee ne ba natt ba amee lan la ayuba def ca mooy daadu dellu ca la nga xamee ni nii mooy ci boroomam mbokk ayuba alayhi salaam natt yooyu bi muy ñëw ci moom bokk na lum daan wax mooy bi yàlla commencé jël alalam lu yàlla jël mu ne ko allahuma anta lazi atayta wa anta lazi axasta yàlla de lii yaa ma ko joxoon yàlla lii yaa ko jël ey yow julit bi nga xam ne yaa ngi may dégg mën na am corona jural la lenn ci wàññeeku ci alal waa alal jooju ku la ko joxoon ab liggéey ku la joxoon ab liggéey gannaaw ba ñu la ëpp ay diplôme ëpp la kàttan gën laa soxla nekk ay chômeur mbokk kooku yàlla la kon bu ko yàlla jëlee dellul ci yàlla ñu ngi may wax démb lu yéeme benn ndaw boo xam ne sénégalais la nekk ca Italie ñu ñëw na ko kat service bi la yoroon dañuy am la nga xam ne mooy congé technique arrêté leen seen liggéey mu dem jóge ca étage yi gën a kawe daa di daanu daa di xaru mbokk kooku xamul sunna yàlla ci ay jaamam xamul naka la yàlla subhanahu wa taala di nattoo ay jaamam waaye ayuba lu mu daan wax yàlla yaa ma joxoon yàlla yow yaay ka nga xam ne yaay ki jël ayuba alayhi salaam noonu la saxoo ca alalam ja alal jay dem nànk-nànk ba jeex bi yàlla ñëwee ci njaboot gi heure bu doom faatoo mu ne yàlla yaa ma ko joxoon yàlla yaa ko jël heure boo xamee ni nii ab soxna faatu na yàlla yaa ma joxoon yàlla yaa ko jël nii la dëkke woon ba baa yàlla di ñëw ci wér gi yaramam bam demee ba mënatula dem mënatula dikk mu ne ah yàlla day kattan gi yaa ma ko joxoon yàlla kattan gi yow yaa ko jël ca loolu mbokk mooy yëg-yëgu jullit mooy heure bu natt ñëwee mu fàttaliku xéewal xam ne xéewal du moo ko may boppam waaye xéewal ci yàlla jalla wa ala la jóge mbokk ayuba mi ngi noonu ci nattoom ya nattu ba ndax dafa yem ci jëmm ja rek waaye dafa yegg ci biir xolam suñu borom yàlla seetaan ko mu sax ci loolu fukki at la nga xam ne ak juróom-ñett mujj gi nit ñépp daw ko bam des benn soxnaam bi ma la waxoon ak ñaari frère ak ñaari ñoo xam ne ni ci ay jegeñaaye leem lañu ñoom dong ñoo gëmoon ayuba des ci moom ba benn bis ci bis yi da ngay gis ne ñoom ñaar mas nañuy toog ci ayuba di waxtaan kenn ci ñoom daal di ne ah man day ayuba dama ragal ni def na bakkaar boo xam ni benn jaamu yàlla musu koo def ci kaw suuf moo tax yàlla nattoo ko lii mu ko nattoo loolee mbokk da ngay gis ne fa seen xam-xam toll woon lool la ndax gisoon nañ ki yàlla teg na ko ñàkk jël alalam jël wér gi yaramam nit ñépp daw nañ ko loolee kon ñu ne dafa def bàkkaar bu mag mbokk erreur bu garaaw boobu ngalawaayu jullit bu mu la dal bul xool mukk ne yàlla ngërëmam dafa nekk ci ñum xëpp alal xëpp leen jaboot ñiy wër penkook sow waaye bul gis mukk ne yàlla neram wala xeebaateem wala suufeem dafa nekk ci jaami yàlla yi nga xam ne bu ñu añee duñu reer ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo paralysé wala ñu gaana ci jaamu yàlla yooyu tëdd ci biir prison abadan bul jàpp ne ñooñu dañoo ànd ak merum yàlla jalla wa ala mbokk gëmal ne yàlla mooy nattu ay jaamam te ñi gën a tar ci jaam yooyu ñi ci gën a kawe ñoom la seen nattu di gën a màgg doonte ne jullit yow wala fi dañ naan la as góor di wéyee yàlla bu ko say say xam na am mbokk jullit yàlla ngir jagleel jullit ñi daraja yee gën a kawe ci kaw aljanna fokk mu teg ci ñoom ay lay yoo xam ne ëllëgi ki si biir su ko waxee ci kanamu jaam yi daañu xam ne ñii yeyoon nañ daraja yooyu moo tax yonent bi alayhi salaam daan ñuy wax ni ashaddu naasi balaa anil anbiya ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة مبكو حديث بريبي ملن نتلي آه Tirmisi soloo na ko ne xadis bu wér la mu ne ñi gën a tar ay natt ci kaw suuf mooy yonent yàlla yi gannaaw ba ña nga xam ne ñoo suuf ci ñoom ci kawee daraja ci kanamu yàlla mu ne nag jullit bu nekk yàlla dana ko te nattu ca fa diineem toll su diineem dëgëree ay nattoom dana tar su diineem woyefee ay nattoom dana woyef jaam bi du deñ yàlla di ka teg ay nattu ba baa muy wëlbatiku di dox ci kaw suuf benn bakkaar nekkatul ci moom mu set wétti ci bakkaar fekk la ko ko yóbbe mooy nattu ya nga xam ni suñu borom yàlla teg na ko ci loolu ci ayuba ci ci jaamam boobu ak kooku ku mën a doon nga la waaye jullit xamal ne suñu borom yàlla arhamar rahimin du neenal mu ko loo xam ne métit la gum jëme ci ab jaamam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis boo xam ne imaamu muslim soloo na ko nee na ma min muslimin yushaaku shawka فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة amul benn jaamu yàlla bu yàlla di teg benn dig bu ndaw jam ko wala lu gën a kawe loolu lu dul yàlla faral ko ci ay bakkaaram yëkkati ko ca la nga xam ne mooy la nga xam ne mooy ay daraja kon jaamu yàlla boobu ñuy waxtaane tey muy ayuba alayhi salaam mi ngi nii yàlla subhanahu wa taala tegeele ci moom ay natt yoo xam ne benn bi rek bu ko tegoon jaam ordinaire mën naa doon ku saalit waaye lan la ayuba def mbokk ayuba alayhi salaam daawul bëccëku woo boroomam jalla wa ala mi nga xam ne mooy arhamar rahimin mi nga xam ne mooy borom dogal yi mi nga xam ne mooy def lu ko neex daani na ko rabbi anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin ay yàlla suñu boroom man day lor dal na ma waxul yàlla yaa ma teg lor ngir tegge niiw ak boroomam jalla wa ala mu ne ay yàlla lor day dal na ma ca ku may yërëm rekk yow yaa ëpp yërm yërmaande ci képp ko yërëmaate ca mooy xam ne ne ne yàlla tegu ko mbugal yi ngir mbugal ko waaye yàlla da koo teg ngir yërëm ko ngalawaay yow julit bi tëdd ci sa lal ngalawaay yow julit miy wër ñàkk dépense ngalawaay yow julit mi nga xam ne sa njaboot faatu nañu xamal ne arhamar rahimin borom yërmaande ju mag ji teg na la natt bi ngir yërëm la ngiree xam ne dund àdduna lu gàtt lu néew la allaaxira muy fa ñu jëm fa la ñuy sax ca natt bi mu la teg la lay xaar ci allaaxira moo ko gën téeméeri junni yoon looloo tax mu feeñal yërmandeem ci yow noonu la jokkoo ak boroomam loolu it ñu war cee bàyyi xel mbokk nattu bu ñëwee ngalawaay ayuba ibrahima maamam la yanquba maamam la waaye teewul da ngay gis ne mu delluwaat ci arhamur rahimin ki nga xam ne njëriñ ci loxoom la nekk lor ci loxoom la nekk ngalla way yow mi nga xam ne yaa may déglu it xamal ne lor bu mën a tege ci yow lor ga ak lu mën a doon kenn mënu koo teggi ku dul yàlla du ab yonent du ab sëriñ du malaaka du kenn ndax lor bi teguwul ci yow lu dul bi iznillah du teggeeku ci yow lu dul bi iznillah moo tax mu ne ko ay yàlla lor dal na ma ca yow yaay ki ëpp yërmaande ci ñiy yërëmaati loolu it nga la way gànnaayoo ko yow julit mooy rabbi massaniya dur wa anta arhamur rahimin yàlla lor dal na ma ca yaa ëpp yërmaande ci ñiy yërmaati mbokk lii bi nga xamee ne ayuba def na ko dellu ci borom bi jalla wa ala borom bi ca la wone ab kawtéef kawtéef boo xam ne ci ay kawtéefam la sax na ci feebar bi ay at waaye suñu borom yàlla mi nga xam ne mooy borom kun fa yakkoon mi ngi kay xettali xettali googu it suñu borom yàlla daa bëgg sabab dafa bëgg gis jaamam buy sabablu loolu moo tax mu daal di indi benn sabab sabab ba mooy lan mooy ay ayub urkut bi rijlik haza muxtasalun baridun wa sharab ayuba jógal këddaal suuf soo këddaa suuf ndox dana ci génn jëlal ndox moomi nga naan ci nga sangu ci ayuba alayhi salaatu wasalaam daa di jóg na këdd suuf ndox commencé bëx-bëxi mu daa di ci jël naan la nga xamee ne mooy feebar bi nekkoon ci biir yaramam yépp wér mu daa di ci sangu feebar bi nekkoon ci bitti yépp wér looloo tax mu fassiroona yu bari dañu naan ayuba la ko daloon mooy feebaru dermatologie amma boo dellu woon ci bani israil daan ca wax wax yoo xam ne du sunna yàlla mu koy jëflante ak yonentam ca mooy ayuba dafa demoon ba yaram bi saxe ba sax yi dañ ko daan bëriñ di yóbbu mbokk loolu affaireu waxi bani israil rek la demuwut noonu yàlla tegoon na ko feebaru dermatologie bu tar ca xam ngeen ne ñu bari dana metti ci ñoom ba dana dem sax ba faat leen kon ayuba jógal def loolu muy wane it ni feebaru dermatologie bu mu mën a doon dana soxla ndox dana soxla garab goy naan gannaaw ba dana soxla luy diwoo bokk na ci la nga xam ni nii histoire yi nettali na ko ayuba alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla di wuyu dafa fekkoon muy dem wanag beru ca àll ba di dem wanag soxna si daal di koy bàyyi gannaaw ba la soxna si ñëw bim ñëwee fekk ne ayuba changé na yàlla delloo na ko melokaan boo gën a rafet ba mu meloon avant muy feebar mu daal di ñëw na ko waaw yow ndax gisoo fii jaamu yàlla boobee yàlla natt woon ayuba na ko man la mu ne ko déedéet bul ma këyitloo ayuba doo ko jox ay mandarga wan ko ne ko man la ñi ngi jëkk a dégg foofu mbokk ay yow aji feebar ji xamal ne ak paj day ci loxo yàlla la nekk yàlla mi fajoon ayuba su ko neexee faj la yàlla mi delloo woon aju ayuba taaram su ko neexee delloo la ko loolit kon jullit dafa war a di góorgóorlu di muñ ci loolee bokk na ci loo xam ne ni nettali nañ ko mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala bi nga xamee ni nii wéral na ayuba mu sangu ba pare ca la yàlla tawal ci moom ay genre soccet yoo xam ne soccetu or la ayuba ramasa ci ramasa ci loo xam ne delloo na ko lu ëpp alal ja nga xam ne nii moom la ñàkkoon suñu borom yàlla it subhanahu wa taala wëlbatiku waat ci ayyuma boome ne wa aataynaahu ahlahu wa mislahum ma'ahum commencé ko di ko mayaat ay doom di ko mayaat ay doom ba may ko doom yu toll na doom yu mu amoon bal borom xam-xam yi yenn nii ci ñoom sax nañuy firee wa mislahum ma'ahum dañ ne masalan ayuba bu doon te ni avant muy feebar amoon na juróom-ñaari doom masalan yàlla mujj na ko muy fukki doom ak ñeent kon gannaaw nattu bu tar boobu yépp ayuba alayhi salaatu wassalaam yàlla delloo na ko la nga xam ne mooy wér-gi-yaramam gën koo taaral xëppaat ko alal bu ëpp ba mu ñàkkoon may ko njaboot goo xam ne ñoo ëpp njaboot ga nga xam ne ni ñoom la ñàkkoon lii lépp mbokk suñu borom yàlla mi ngi ñu koy jàngal ca place yu bëri ci alquran bokk na ci loole fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ay waay yow julit war ngaa yàgg dégg alam nashrah bu dee ne mokkaloo ko it suñu borom ne xamal ni gannaaw jafe-jafe bu nekk ak yombal ma nga ca gannaaw jafe-jafe bu nekk ak yombal ma nga ca mbokk jullit yi kon ayuba alayhi salaam day mi ngi nii doonoon jaamu yàlla boo xam ne avant que yàllay nattu daa nekkoon ca la neex yàlla njaboot ga mu tegoon leen ci yoonu yàlla alal ja mu tegoon ko fa neex yàlla daawu ca seetaan miskin daawu ca seetaan ko jaaxle jëmmam ji it mu taxawoon ci di jaamu yàlla looloo tax keroog ba mu jàqee ba tiisu ba mu delloo ci yàlla yàlla wuyu ko suñ borom yàlla it noonu moo ko wuyoo noonu la koy defale bépp julit moo tax mu ne wa ayuba isnaada rabbahu anni massani dur wa anta arhamu rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa aataynaahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin borom bi nee na ayuba ngi nii woo na boroomam ci lor gu ko dal suñ borom nee na wuyu naa ko teggi mboolem lor yee tege woon ca moom ñàkk ga ñàkk njaboot ga ñàkk wér ga tiisu xol ga nga xamee ni nit ñi dawoon nañ ko loolu lépp suñu borom yàlla boole ko teggi mu ne nag loolu def naa ko yërmaane ba bawoo ci man waaye di ko fàttali képp koo xam ne ni it sab jaam la bu nangu ak jaamam ngalla waay nañ nangu ne ñun ay jaami yàlla lañu moo tax borom bi ne zikra lil abidin kan mooy ki nangu jaamu yàlla mooy ki ñaan yàlla may ko jàmm fu mu mën a toll te it julit bul ñaan yàlla mukk ay nattu ndax xamoo bu ñëwee noo koy jëfe yonent bi alayhi salaam dañu doon ñaax sallullaha al aafiyata fi dunya wal axira day leen ñaan yàlla jàmm àdduna ak jàmmi alaxira naam loolu mooy sa warugar léegi nag yàlla moom mi dogal lu ko neex ngàllawaay bu nattu dalee ci yow nangul na jaamu yàlla nga ca mooy nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun day ay jaami yàlla lañu ca ci yàlla lañuy dellu soo mëne it nga dolli ca allahuma ajurni fi musibati wa axlif li xayran minha allahuma ajurni fi musibati wa axlif li xayran minha ey yàlla yàlla nag ma bindal ab yool pay ci musiba bi ca wuutalal ma lu ko gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn jaam bu yàlla di teg natt mu wax loolu illaa ajarahu llahu fi musibatihi wa axlafa lahu xayran minha lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko may ay pay yu rëy ca musiba ba wuutal ko la nga xamee ni ni moo ko gën waaye bokk na it ci lu ñuy jànge ci qissa ayub mooy kulliri boo xam ni way dencante yi war nañ koo am ay yow soxna su may déglu xamal ne soxna ayuba ba day ngiree bëgg ayuba wir taxoon na ko dem dugg ci ay mbir mbir yooyee boroom xam-xam yi dañ caa wuute moo tax bëgguñu caa xuus waaye ñàkk gëm gu mag gi nekk ci ayuba ci nekkul ci moom merloo woon na ayuba bam na ko yow bis bu ma jógee sama natt bi dinaa la dóor téeméeri yar loole yàlla mi boroom yërmaande ca xam li nekk ci gannaaw yéene ca xam ne soxna si erreur boobu mu defoon yërmaande rek la ñeel jëkkëram moo tax suñu boroom ne ko dajaleel téeméeri yar ci benn say nga dóor ko ko benn yoon waaye soxna si yeyoowul la nga xam ne mooy mbugal loolu it yow ñu ngi lay dénk nga la waay yow mi nga xam ne nii yaay soxna si sa jëkkër bis bu demee amoon na ba amatul ngallaway bu ko won tànk bukki demoon na ba wir ca wiratul ngallaway bu ko won tànk bukki na nga ànd ak moom muñ muñ loolee ca xam ne daraja yi kawe la lay jural allaxira yowm alqiyaama loolu it la ñuy sant yow mi nga xam ne yaay borom kër sa soxna mën naa dem ba wér ga mu amoon amatu ko taar ba mu amoon amatu ko mën na am teraanga yam la doon defal mënatu ko waaye nga la waay bu mu tax nga xeeb ko lii lépp mbokk ñoo ngi koy jàngee ci qissa bi nga xam ne jàng nañ ko ci yeneen yàlla ayub loolu moo tax ba ay yow mi nga xam ne yaa may déglu ci kaw suuf foo mën a nekk ñu confiné la daa di lay tëj mënoo dem mënoo dikk sa liggéey yàqu na sa alal ji nga yoroon jeex na mën na am sa jegeñaale yu bari faatu nañu ngalla waay fàttalikul jaamu yàlla ayub bi nga xam ne moom a gën gën la yàlla subhanahu wa taala tegoon ci moom la mu ko teg ngalla waay dellul ci yàlla sa làmmiñ bu mu denc istixfaar sa làmmiñ bu mu denc sabbal yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ca sa xol bi it bu mu denc jëm ci yàlla ne lii de yàlla da koo def ngir yërëm ma da koo def ngir nattu ma ca mooy arhamur rahimin bis dana ñëw waaye guddi gi lu mu yàgg yàgg jant dana ma sa fenk mooy lii de yàlla mën na def ma toog ba koy nettali di wax sama atum corona ba loolee kon mbokk mooy tey suñu waxtaan bi ñuy séqoon ak yéen di ñaan yàlla suñu boroom yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla musal may ñu aafiya gu sax ci àdduna ak alaxira yal nañu yàlla xéewalal suñuy dégg suñuy gis ak suñuy kàttan ba baa ñuy daje ak moom corona bi képp kum dalagul woon ci jullit ñi yal na yàlla féewalu ko ak moom bañ koo dal képp koo xam ne dal na la yal na yàlla saafara la saafara bu ànd ak jàmm ñépp ñoo xam ne jot nañ ca faatu yal na yàlla defal leen àjjani firdaws mi seen wàccuwaay ña nga xam ne seeni liggéey yàqu na ca yal na yàlla wuutalal leen lu ko gën ña seen alal wàññeeku yal na yàlla wuutalal leen lu ko gën إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته